ndaje bi euh, ñu def ni je rappelle que nous na lu ko aussi dans le cadre du programme Amna ben benn euh, ndaje euh, bu randonnée Peders, boo xamante ne jotoon ko def pour sensibiliser mobiliser ces yëpp mag ak ndaw jigéen góor donc pour que ñu sensibiliser leen ci enjeux yi traversé terre bi kooku am hein. à la suite de de cette rencontre là de cette randonnée là ci la ñu organiser forum bi forum bi nag dañ ci am ñetti objectif ah nisër ñetti nisër lañ ci am benn bi ah mooy ñu dajale li ñuy wax ay partie prenantes mooy képp koo xamante ne daal donc euh, ci dëkk bi nga bokk ah di représenter benn catégorie moo xam way laago yi la moo xam euh, bàjjenu gox yi la

ah ñu ñu mën ci jaar pour mën a développer Sébikotane. suivi bi liñ ci yaakaar ah parce que ñun askan wi la yuy liggéey mais décision yi ñun yoruñu ko du dëgg ah waa municipalité bi ñooy décider wala waa nguur gi ñoom ñoy décider heureusement que municipalité bi impliqué wona ci mbir maire bi wax na ko waxaat ko bu discours am tey aussi rappelé nako hein ñi représenter état bi seen terre APIX yooyu yëpp vraiment adhéré adéré nañu ci ci ci ci projet bi wayé euh, nu mu tuddati euh, forum bi hein dafa prévoir ne hein, bu dee waa bu xotaan d'accord nañ ci pour li nga xamantene ne ni moom mooy sirot hein ñu mëna wéyel wéyel wéyal ba nga ni suivi donc dinañ am implication hein SIROTS bi dina am implication mairie implication partenaire yep alors mu de garantir véritablement la réalisation des objectifs qui ci